hee ratanga tàng na de assistant mbaa dina mën a faj Aminata malaadam bi jëkkëru xale bi nag moom nan la nar a def yéen a tëj fi sama jabar mu ngi si seen hôpital bi leer na ma génn leen ko su ngeen bañee coow am fii xamu leen fekk ngeen ko seqal.
sëñ bi defal naa ci hôpital nga nekk.
bàjjan borom bi bet la waa ratanga yëpp di wax seen secret xarit yi man moom maa ngi taal sama rajo déglu li bàjjan nar a nettali tey ci C'est la vie à ratanga waaye dama ni ana ku dof ñeenteelu épisode ñàkk sa bakkan FM Ratanga mooy rajo bu nekk ak mag
Ratanga mi ngi dund dundam man bàjjen bi quartier bi sosoo ba léegi fii laa dëkk mag laa di nag célibataire bu am juróom benn fukki at ak juróom soixante-cinq ans laa wax de xam naa famille yëpp seen dund ndax ñëpp wóolu nañ ma di ma wax seen secret depuis ba ma ubbee buvette bi ba léegi am na xale yu juddoo ci centre bi samay turandoo lañ su guddi jotee damay dugg biir Ratanga di jubali ñi am problème ci seeni sëy walla ñi bokk kër kenn mësula dégg ni man maa nettali benn secret ndax sama der lay sàmm
C'est la vie, puis tu ratanga. Aïe, yek singa ratanga. Asitan chiratanga, korsa chiratanga. Pajenetalinyo gonduratanga. Fagaro. Morgan Fajo. Sawir Kuyara. Morgan Fajo. Saito Kocha Bamuita. Morgan Fajo. Fagaro Wangangapu. Morgan Fajo.
nan leen lekk leen jël leen lu leen neex maay paye bàjjen.
waaye def leen ndànk waaye yéen itam def leen ndànk ñëpp dinañu naan waa jii mooy fay waaye nag ci centre de santé la ñu nekk ndànk rek waaye yéen tamit arrêté leen coow li noppi leen silence bala yaay ñëw di ñu yooxu ah ah jëfute bàjjen lu fi client naan maa koy fay. kaay leen naan boisson wala sandis café noir wala café au lait kaay leen maay fay ci sama barke doom bu jigéen bi.
waaw d'accord dégg naa leen may leen ma ma laaj ko waaw yow looy feete sax sama jabar moo am doom bu jigéen bàjjen. sage-femme assistant moo ko toppatoo may paye tournée bàjjen démb ci guddi assistant moo soowee sama jabar ak bébéem liir bu jigéen bu rafet laa am bàjjen maa gën a kontaan ci góor ñi sama jabar mu ngi ci jàmm dama kontaan invité naa leen yéen ñëpp ci ngénte li dans huit jours jox ko joxal ndaw soo sa wet boisson bu naan yow dof nga rek doom ju jigéen nan lañ koy feete man de doom ju góor laay xaar man waaye dof bi fu mu jóge yow xanaa bëggoo sa yaay am turandoo dangaa tardé sax naanal te jóge fi doom bu jigéen laa am moo doon sama gént ci àdduna man ca xaj yow ci bañ jigéen bi nga doon xale yëpp ñoo yam wareef yamit devoir bi nu juddoo santé naan leen te ñaanal sama bébé bu jigéen bi juddu bi xelil boisson bi bàjjen na kaasi fees ba su tey bi kenn du ko fàtte
bàjjen di tax waaw waaw waaw def leen ndànk waaw wàññi leen coow li def leen ndànk di ngeen am yéen ñëpp waa taxaw leen waaw kay jërëjëf xaaral ma jox leen nag.
jot jot li
am na ñuy xuloo ci buntu hôpital lu xew waay lu garaaw liy nirool benn paa bu mag moo dugg ak meram ci centre bi kiy jaay ticket ni ko mu xaar ci hall bi ngir mu arranger situation bi yaay sax a ngay daw jëm ci ñoom yéen a tëj fi sama jabar mu ngi si seen hôpital bi leer na ma génn leen ko su ngeen bañee coow am fii xamu leen fekk ngeen ko seqal.
sëñ bi defal naa ci hôpital nga nekk kenn du fi yuuxu ay malade ñoo fi nekk calmez-vous waay yéen ñëpp ban calme delloo leen ma sama jabar lan fii ngay liggéey yow waaw sage femme la maay gestionnaire hôpital bi sama jabar Aminta laay seet tere naa ko ba tàyyi mu ñëw fii waaye dafa dindi sama kàddu
Aminata xale bi am fukki at ak juróom 15 ans yow yaay jëkkëram kaay sëñ bi maternité bii du ay jigéen rek nañ fii dalal ak jàmm ak seen i jëkkër itamit oh baax na waaye ana sama jabar nekkuñu fi pour di tëj jigéen ñi waaye pour jàppale leen yéen sama càmmin ñëwal nga gis docteur Moulay waaw soxna si loo bëgg man de maa yaayu Aminata man de foogoo naa ne doomu paa bi nga sax yow saytu wér gu yaramu nit ñi lañ leen sant waaye du lijjanti seeni mbóot man fu sama jabar nekk fu ngeen ko tëj topp leen ma ay waay delloo leen ma sama doom damaa bëgg a gis Aminata
bonjour docteur toogal sëñ bi naa la jàppale bu baax ma may la ndox dégg naa la ngay yuux war nga mar de
merci yaay sëñ bi man maay docteur Moulay kii mooy assistant sage-femme bi doon faj sa jabar Aminata yaay mooy gestionnaire u centre bi Korsa di sage-femme fii sama jabar laay jël si néew ma ngir xamante ñi nekk ci centre bi ana Aminata ay waay delloo leen ma sama doom Aminata laa bëgg a gis soxna si dalal dalal Euh, sëñ bi man maay médecin bi yilif centre bi sa jabar bi muy agsi fii fekk na kenn mënatul ci moom dara bi muy ñëw amul sa carnet de suivi de grossesse àndut ak kenn waaye terewul assistant jël ko jéem koo faj dara jotul Aminata te soxlawul xale bi sa di ko faj ndax rabu àll yi bu ñu ëmbee dañuy gis sage-femme mais yow li nga wax dafa garaaw mais nit lañ lay wax rawatina sa jabar assistant du xale sage-femme bu mat sëkk la li mu doon maa tere Aminata mu ñëw fii si yéen ngeen koy tëj fii si kaso bañ ma gis ko centre bi yëpp laay jaxase waaye dina dellu sama kër loolu yàlla dogal na mënul nekk Aminata ñàkk na bakkanam ndax dafa avorté ay waay ñàkk naa sama doom waay Ah.
lépp seen gone gi la kii moo rey sama jabar xale bi amul ay atam doyul ngeen koy fajloo fotam la ak yow mi seen njiit li nga wax xam nga ni du dëgg sunu sage-femme bii di assistant ndaw la ci atam waaye sage-femme bu mag la kenn amul loo ko xasee ci liggéeyam def na lu mu mën ak lu mu mënul ngir sauver sa jabar ak sa doom ay waay lii ndogalu yàlla la waay Maadu nii la ko yàlla bëggee
ma ne kii moo ko forcé mu toog fii ba dee fii nga naan ma lan
ci yàlla ay yàlla loo ma def nii tey Aminata sama nenne tuuti bi nga jël ko nii tey
baal leen ma soxna si baal leen ma de tonton lu ma mën def naa ko ci faj Aminata baal leen ma.
day jooy kon xam na li mu def moo rey Aminata
assistant xanaa daa am loo may nëbb daa mel ni yaaray Aminata
malade bu dee bu ne tiis la sunu équipe bi waaye kenn ci ñun juumul seen doom jii dee metti nañu lool dinañ ko ñaanal moom ak doomam ay waay ñaanal leen ko bu baax waay sama doom ji dem na waay ay ñàkk naa sama doom
dinaa ko porter plainte moom ak centre bi
sëñ bi man comprendre naa la yow sax da nga war a jéem a xam li xew dëgg-dëgg Korsa bu ma soxlaa sa xalaat dinaa la ko laaj dégg nga dellul faj say malade docteur Moulay bàyyi mu sedd yow jëkkër Aminata laay waxal bii mooy ñaari yoon nga takk xale bu am 15 ans ëmb dee ci sëy buñ ko forcé bu ñu demee police ñu wax lépp centre bi tamit kon dina la porter plainte ndax mariage forcé bi ngeen def mu ne ko moo rey xale bu jigéen bi nga réglé nag moo gën ci yow da nga dem seeti sa jabar ci morgue ba waaw bu loolu weesoo ñu ngi naxarlu deewu Aminata te di leen ko jaale bu baax a baax a baax docteur comprendre ma rek jaaxle ak naqar laa boole yaayam sa jaaxle na waaye dogalu yàlla rek la dinaa ko dëj dëj bu masuta am rattanga ngir ñëpp a xam ni maa ko bëggoon goro nañu dem xooli niiwu Aminata cey yàlla
ay waay ñàkk naa sama doom waay
waaye yéen xanaa xamoon leen ni sage femme bu bees bi rey na benn xale bu jigéen bu am fukki at ak juróom.
déedéet du moom dégg naa ñu ne Korsa moo ko bañoon a faj mu daal di dee ci hôpital bi.
sëy loo xale bu motul moom musiba rek lay jur lépp waajur yu bëgg yi rek la.
bëgge bu ëpp wala tëju ci cosaan joo xamul dara kay la.
mariage forcé violé loi la jalgati yoon dëgg la benn xale bu jigéen warul sëy te àndu ca mbaa mu am fukki at ak juróom-ñett.
dañoo sax nag war a teg daan ñu dar képp ku koy def.
accompagnant yi indi malaat yi daanaka ci sama bunt bi wet la ñuy toog di daw tàngooru naaj wi wala di xaar ku leen jàppale ci seen ordonnance yi ñu mënula fay am na ci ñoo xam ne bàyyi defal yàlla rekk lañu fiy xaar ngir jënd seeni ordonnance ramatu moom yëgul li xew ci centre bi muy daw di dugg si yore portable bi tàntaam yaay fàtte woon seen kër mi ngi dabe yaay ci bunt bi wet bi yaay da nga fàtte sa portable ci salon ba.
man kay nii rek.
bàjjen bàjjen toolu xew ni nga ma teertoo tey sedd na di.
ramatulaay benn xale bu jigéen bu ndaw moo dee léegi.
ah bàjjen toi aussi man lu ma joteeg deewu kooku.
en tout cas daal mariage yu teel ñoo jur ëmb yu teel.
bàjjen man xam naa bu baax fi may teg sama tànk merci ci conseil bi mais jox ma boisson bien fraîche moo ma gënal.
sëy daal nekk na lu sérieux kenn du ko yàkkamti man yeneen priorité laa am fi ma nekk ay waxu mbëggeel tallum ma ko.
état bi ci boppam moo war a dal ci kaw ñiy jalgati yoon di def yii crime.
man amuma jëkkër amuma far déglu sama rajo daal laay def.
Ramatulaay ba sama rakk sa yaay gaañoo ba léegi yaa ngi nekk ak man. bu sa papa sàgganewul woon planning familial. di sore njur xëy na ba léegi sa yaay mi ngi dund yërëm naa assistant torop waaye bañ dem kër ga ñu eggali suñu waxtaan.
ramatulaay bàyyil bu ñuy wax ak yow ngay dof doflu bàyyil xel ci lii dal Aminata.
d'accord bàjjen dégg naa la.
ah baax na. kon kaay ma wàññil la nga jënd benn boisson ah. taalaa ngi ñibbi di xalaat bu baax lan lay fekk këram bu ubbee bunt ba leer na ko ni yaayam rokk baa lay dégg bu tolloo ca bedd muy yoo Emma de sonn na bëgg naa ko lool xale bi man bàjjam Emma de moom céy bu arrêté wul woon njàngam CM2 ngir sëy ak taala teg ci ëmb bu jëkk bés bu nekk mu delloo Rachel ay livre man xaw ma sax nu nit mën a liire livre yu bari yi ci benn semaine boo demee dafay nëbb naqaram noonu ndax rokk baa mi ko dëkke di ko yuuxu
Emma de yow mënuloo fóot sama yére yi damaa war a dem mariage bul tegati sa tànk ci centre de santé bu Ratanga waaye yaay maa ngi togg nii mënuma koo boole togg ak fóot en même temps barki démb rek laa la fóotal sa yére maa ngi yore ñaari doom yu ndaw di soog a jóge marché bàyyil ba suba jigéen ñu baax ñi dañuy toppatoo seeni goro wante yow tekki wuloo dara jàppal teel saabu bi te fóot laa la wax te na reer bi pare léegi nag tayal ba dee sama doom ji tàlla méritéwul jabar ju bon ji nga doon waxloo ma rekk nga mën ale waay maman Rokoba damaa feebar yow moom dinaa la wutal wujj damaa feebar fankat bi dangaa tayal rekk sama yére yi daal fii la ñu nar a nëbe ah dinaa ko fóot après na nga ko fóot balaa may dellu si fii ci kër gi gëmuma sax sa tappale yi ca kaw ga jigéen ñi dañuy soq boole koog di dox ay kilomètres di uti matt pour togg te deewuñu dinaa dem dëkk ba wutal fa taal beneen jabar bu mën sëy teel sa làmmiñ bi te fóot laa la wax baax na su ma toggee ba pare dinaa fóot
te nga fexe ba fóot lépp te sa reer bi bañ a xëm tayal ba dee sa yaay yaru la moos wax loo ma rekk nga mën
na ngeen def mbaa jàmm ngeen yéen doon
waaw kay taala wàcc nga ndax yàlla nga wax ak sa jabar ji duma moroomam daf maa war a jox respect ak di ma gaaw a fóotal dégg naa la maman et ma demande chérie naka sa journée fan yi moom dama sonn bari lu may miir Layla rek pour bañ a fóot waaye nag fii nga may fekk Talla waxal ak sa jabar maman maa ngi soog a wàcc bàyyil après dinaa wax ak moom ah waaw kay léegi nag bàyyi nga sa yaay faral sa jabar ji nga xam ne amul benn njariñ yow Talla sama benn doom bii ma am on verra dinaa dem dëkk ba utal la ñaareel boo xam ne dina ma respecté dinañ si waxaat fi mu ne dama sonn nelaw laa bëgg lekk jotaat samay force
du sa reeru jabar ju bon ji moo lay jox doole na toppatoo daal sama yër yi ba pare man
lii mbir la de
assistant ay atam barewul mu ngi soog a gis xale bu dee jaxasoo na trop taale bi muy bale ci suba mi ngi ko fekk mu wéet ci benn saal léegi sax dafay hésité bala moo jël malade bu bees pour seet ko yàlla bu dee moo rey Aminata di ndeysaan Aminata maa ngi koy gisaat nii mu tëdd ci lal bi saa su nekk moom lay xalaat daf ma wóolu woon waaye ma tas yaakaaram mere naa sama bopp de
non assistant def nga li la war yépp amoo looy mere sa bopp ah yaay nekkoo fi woon moo tax ngay wax wax ji waroon naa trouver beneen pexe pour arrêter hémorragie bi bul accuser sa bopp assistant boo amee ku rey Aminata jëkkëram ju màgget ji la mi jël xale bu ndaw ëmbal ko xale bu tuuti bu yaramam àttanul grossesse docteur Moulay baal leen ma de bugguma centre bi am benn problème ndax man xam naa sax dama war a dem feneen dem fan comment ça bu àll bi dee daw garab gu daw it du génn àll bi fii kenn buggul nga dem mais jëkkëru Aminata dafa ma menacé dafa nar a porter plainte contre man loolu lay xaar yow nga def loo mën ngir sauver Aminata ak bébéem bi gërëmatu la di porter plainte docteur man maa xamuloon nan laa ko waroon a fajee ma cuuni rek ba sauvewu ma ko assistant bépp sage femme bu nekkoon sa place li nga def rek lay def waroo xalaat sax naan cuune nga wala boog man maay cuune bu mag bi ndax nekk mu woon sa wet pour sauver ko yaa ngi woon salle di opérer docteur munoo woon a nekk ak man en même temps yow rek yaa nekkoon ak malade bi ci urgence bu laajoon équipe bu mat sëkk ak jumtukaay yu bari dara mënoo ko ci woon neexu la wax waaye ñun ñëpp ci laal ndax amuñu personnel bu doy te fu ñu toll ñoo ngi jéem a jox malade yi faj bi gën a baax malgré tout duma mës a fàtte Aminata bi xale bu ndaw kenn laaju la nga fàtte ko waaye xam naa ne moom it bëggul nga xalaat ko ba yàq sa àdduna li ñuy xaar ci yow mooy nga jàppale ñu ba centre bi jëm ca kanam ok docteur
Ratanga mooy dund gi am ci biir centre de santé bi bàjjan dugal nañu ci biir xolu waa Ratanga seen mbégte seen naqar seen yaakaar seen yaakaar ju tas ci biir épisode bii di ñëw mooy dund ci biir Ratanga docteur Moulay baal leen ma de bugguma centre bi am benn problème ndax man xam naa sax dama war a dem feneen dem fan fii kenn buggul nga dem mais jëkkëru Aminata dafa ma menacé dafa nar a porter plainte contre man loolu lay xaar c'est la vie di théâtre rajo bu leen raes jagleel ki ko tëggaat te jiite artistes yi di Massamba Gueye ki def réalisation te tataankat yi di Tidiane Thiang script Aïcha Ndiaye assistante réalisation Marie Diallo chargé de production Abdoulaye Slimane Sy montage mixage Rod Evans